jóge caaray maa di ngeen jàkkaarloo bët bi ñaa moo leen woon ginnaaw ndeysaan tey journée Dioufy production mu ànd ak ay sponsor leader am ku ci mel ni Catalina borom Tampico borom King borom TDR Touba Darou Rahman waaye duñu fàtte ki nga xamante ne mooy Al Amin service ñaari mbër yaa ngi leertoo bët bi ñaa woon leen ginnaaw maa di ngeen jàkkaarlool Petit Niang ak Mady Petit Niang ak Mady arbitre bi ngay wax ak ñaari mbër yi Petit ak Mady Petit Niang ak Mady Petit ngeen jàkkaar lool arbitre bi àtte na combat bi woo si digg géew gi waaye ni may dernier sens ay ke sifle na maa da ngeen jàkkaarloo Petit wan leen ginnaaw ñaari mbër yaa ngi lewto kurpeñ amagul cong amagul Petit ak ma na arul aate kalian kaa leen jël avertissement kaa leen jël avertissement Briña am na anu. benn anu. Aja am anu. Jadi benn ayca sifle waan Mari. Petit Niang ak Mady Petit Niang ak jàkkaar lool Petit Niang moo leen wan ginnaaw Petit de ay laax la laa tal na tànk ba laax ay la laa Petit Niang ak Mady Petit Petit Niang 2 ak Mady Petit Niang 2 ak Mady arbitre bàyyi xale ñu ngi bëre bàyyil xale yi Petit ak Mady Petit Niang 2 ak Mady Petit Niang 2 ak Mady la 2 Mady bu Zap Petit Niang 2 Mady bu Zap waaye am pare bu ñëw koo kana ndeysaan ñaari mbër yu drapeau kii la ñuy bëre ñaari mbër yu drapeau Abdoulaye Djigo doog a ñëw la ñuy bëre ndeysaan la ñuy bëree waaye mi ngi ànd ak xale yi jongoma laay la arbitre bi sifflé waat na ginnaaw bi ñu bëree cinq minutes noppaliku daal di ñëwaat ci diggante Petit Niang numéro 2 ak Mady Bou Sap Petit Niang numéro 2 wan leen ginnaaw Mady Bou Sap ngeen jàkk ndeysaan Petit ñaan nag si défaite la way ma di ci victoire la ndaysan ma di ko nek caare la Petit ñaan nek ko nek bun ko bun bun, buun Petit Niang mooy ko bun ma di nek ko nek caare di séeréeru Morola ña nga noonu ñoom ñaar ndeysaan no. ñaanoonu maade ak Petit Niang laa ilaaha illallah maade ak Petit Niang maade ak Petit Niang laa ilaaha illallah Sio Madi? ah Mady mën ah daa toj mbapat yi nag. waa ji kii kay daa mën a bëri. ba pare turandoom di mbar ku bu mag ba. Mady bu bu bu Morolan. moom la. mooy turandoom ah eh, ngi lu neex ñaar. eh Batiña door na ko koo mu siggi. waaw Mari dafa mën a bëre. que li def sànq. dafa li mu kon jëru ko saaku jeex na. Ah, kon ay supporter ñibbi nañ. bu yàgg yàgg ñu dem ba ci kanam lépp dina leer. waaye Mari a ngi noonu. Mari bu zap. Mari bu zap ak Petit Niade. Mari bu zap Petit Niade. waaye nee naa la xoolal course tiers. waaw nga mel ni bëre. waaw kër mooy bëre laa ilaaha illallaah. eh, eh, eh maa di. laa ilaaha illallaah. maa di ak Petit Niang. maa di ak Petit Niang ndeysaan papa yi fixé. ndeysaan. Eh, est-ce que xam nga ni Petit Niang bëggatul ci bëre bi dara. Ah, Petit Niang 2 Mady bu Sob ak Petit Niang 2 Mady bu Sob Petit Niang 2 Mady bu Sob Petit Niang 2 Mady bu Sob Petit Niang 2 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah